9 heures 53 minutes la arbitre sifflé combat bi diggante Tidiane Faye numéro 2 Tarbaxa ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu mbokk yi maa ngi jaajëfal mbokku internet bàyyi sa vision xel di am mbégte kontaan àndaat ak yéen ñu fas yéene bégalante waaye mbokk yi maa ngi nuyu jama jama Ndiaye maa ngi lay nuyu borom caaroy ndeysaan kenn du yow mention spéciale su ma nee jama Ndiaye yow xam nga man xam naa ndeysaan yow ma maa la bëggal sama bopp jama nuyu naa la jox sa wàccuwaay waaye Tidiane Faye numéro 2. ak tarbaha ñom ñaare ngi noonu Tidiane won ñu ginaaw ñu jàkkaar tarbaha Tarbaxa mi ngi dem de ba da bëgg dem cher ba da bëgg dem ah bu demé lu koy fekki ah doy na waar de ndeysaan dafa ngay de ak Tarba ak ak Tidiane Faye expérience face l'expérience face à la jeunesse ndeysaan Tidiane fay ak Tafa Gueye de daa naqaree bëreel. ndeysaan bëreel moom yombul. waaye ki nga xamante ne mooy Tidiane Faye mi ngi aj jël na ko aj eh, doon na ko bu génnaat da koy sàcc. Eh, dawru ko ada eh. dóor rek ah, dóor daa doo xam Tapha Gueye Tapha ay la xëy la laa mais jël tag waaye attention attention dafa génn numéro 2 mi ngi bëri mi ngi bëri grand Mansour gis nga gis nga ni def waaw moo tax gis nga Tidiane na moytu sànni ko bët bi xaar waa ci suuf rek waaw man damay ragal nag mu nax ko parce que li muy def waaw waaw dafa gi c'est normal parce que mi ngi jël tànk bi mi ngi mi ngi bi ah di wal ak mom, dafa gi doole ja des na bu njëkk bu rek mosan ray suli nga jaaxal waaw dafa gay numéro ak ak dafa Gueye ak Tidiane fay Tidiane ki ngay takku sat bu dem nako wala ko wax ndaysan Tapha Gueye ak Tidiane fay de xalaat naa mu ñëw man da xalaat na xana bu ñu jàppante di jeex waa ge jël na ko jëlaat na xeex nañu attention ba kaw dam wàcc na ma suuf jël ko takk na ko war na ko ndomba toog na daan na ko Tidiane Faye numéro 2 daan na euh, Tafa Gueye waaye da doole doole la doole la